Yeah.

spéciale bi nga xamanteni ni ñu ngi ko doon inaugurer fofu te Medina Baye ki di khalife général bi fa togal Baye Niass di Cheikh Mahi Niass yëkëti na ay ñaan teg ko ci loxo ki nga xamanteni moy Khadim Ba ginnaw bu mu participer ci investissement bo xamanteni ni na ci juroom ñi milliards bi nga xamanteni ni investir nañ ko foofu pour ben centre commercial ci Medina Baye ñu ngi xamal ni que dal projet commercial bobu suñ ko généré manam comprenant 839 espaces de vente nous avons 839 espaces de vente nous 9 répartir 14 magasins avec 681 cantines avec 144 étals et lépp qui ci benn point de vue, mi ngi coût global bi dina 5 milliards de francs CFA Nous initiative qui est fruit partenariat financier entre kii et l'Afrique et Afrique te Khadim Ba Nous avons investi nga investir le milliards ci état du Sénégal contribue à hauteur de 2 milliards infrastructure loo ni dina promettre lepp lu wala jëbal dynamiser secteur commercial bi nga xamante ni danañ ko stimuler fofu ci économie locale fofu ci Kaolack kon dal nañu japp ni que dal centre commercial bi nga xamante ni toll na ci juróomi milliards nga xamante ni inauguré nañ ko fofu Médina Medina Baye ci teewaayu xalif général des Niassène di Cheikh Mahi Niass kii di Khadim Ba jiite la Afrique moom indi na ci soutien bu baakha baax muy benn partenariat financier bu mo ak état du Sénégal Khadim Ba tek ci lu tollu ñetti milliards état du Sénégal contribué à hauteur de 2 milliards. Hehehehe